ne ma sama daf may wax ne ana sa doom bi Mouhamad Lamine jeexalagul jàng bés bu jeexalee jàng naa ko yëpp pour ñu wutal ko place donc te itam bàyyi moom dafa rëy ndax ba ba muy wax itam ne ma demal euh, seeti Moustapha Niass waxtaan nag moom daf ma wax ne mu wax la kañ la la di recevoir ba pare dama bugg euh, doo jaarante ci benn stade mais dangay nekk ambassadeur plein loolu laa bëgg Senghor def la ko ci sama dund ma ñëw Moustapha euh, ñu waxtaan waxtaanu youth to youth mu ne ma ne mu ne ma tëb rek nekk ambassadeur mun naa am mu indi la ay gàllankoor ëllëg léegi comme euh, ENAM a ngi fii dama dama bëgg ñu seet bu ñu demalee dugal ENAM maa ne ko mën man daal fi ne ni jàng moom dama cee tayalaat fii mu ne kon nag ñu ñu ñaan euh, Senghor Senghor joxe instruction nañ nañ ma jël ministère foreign affairs ñu jël jël ma foofa bi ma demee ñu testé ma bi ma paree ñu yóbbu ma section de de la traduction et de conférence foofu laa def deux ans en tant que traducteur traduire naa sax ci kanam Senghor ci kanam Abdou Diouf ñoom ñoom ñëpp traduire naa seen kanam bi fa nekkee ba 78 lañ ma poste Madame dem Algérie mooy sama premier poste diplomatique ci biti ñu def ma as a euh, euh, cultural consular ma nekk Algérie nekk fa ba 80 lañ ma jëlee poste boobu yóbbu makahira Qahira yóbbu ma Jedda def ma foofu ba tey conseil culturel comme ni ko français yi waxee mais il trois ans. Nous élevons le métier premier conseiller. Pour la année 85, 85, ambassadeur de l'IGM Djer, modèle du Sénégal, le code de 84, 85, m'a chargé de faire l'ambassade du Sénégal, Djedda. Batahna m'a transféré l'ambassade du Sénégal, Djedda, Boba. Euh, King Faisal décidé na ne mboolem mission diplomatique yëpp nañ leen transféré ñu dellu Riyad man maa def man maa ubbi ambassade bu foofa maa luye kër yi ambassade bi njëkk am foofa nekk naa fa juróom benn weer laa fa nekk waaye yàlla dimbale ma parce que Riyad wax dëgg yàlla dugutoon su ma jëmuwaay ndax itam niñ mel ci eh, eh, déggin ci diine dëppoowut ak ñun niñ mel ci déggin ci diine après ñu postpone ma keer laa dem am naa fa juróom benn weer bi may paree juróom benn weer yi fekk booba euh, décision ñëw na jógee ci gouvernement bi di wax ne bépp euh, conseiller boo xam ne def bépp diplomate bu def juróom-ñetti at ci àll bi war naa dellusiwaat ci portion centrale ci euh, juin la dellusiwaat affaires étrangères nek fa comme traducteur ba ni ma fay jógee 1988 euh, euh, ñu yóbbaat ma Jedda comme euh, vice consul général booba ku ñuy wax Xaadim Mbacke doomu Serigne Moustapha Mbacke rakku Cheikh Mbacke moo doon consul ba man maa ko secondé vice consul général bu foofa maa nek ak moom nekk ak moom ba ba liggéeyam pare mu retraité ñu postponement ma sa consul général of Sénégal in Jeddah ma nekk foofa ba quatre euh, deux mille trois euh, euh, mars deux mille trois laa fa jógee ñibbisi Sénégal bi ma ñibbisee Sénégal itam fekk booba ci diggante bi président ci boppam sax ñëw na fa ba sa ma recevoir dafa wax ne yëg nga ne نمنا الامبسدر الجيري بريباري دا ديم الجيري واي كوم من سوالتو مون ليغي دبلومات دما نكو لو ديف رك باخنا بيما генي امنا اي سوم خالي بوم غيس نكو سيرين بي دا دا فا ملني بوستو امبسدر بي سواروجي كون ليغي نانكو باغي في رك با بومي جيهالي ليغيام في سي جيدا دو لول لا ديف تام ñu bayima fa ma nek fa lolu 2001 la ñu ko waxon mu nekk fa ba 2003 euh, ma soog a ñibbisi Sénégal bi ma ñibbisi Séné ñibbisee Sénégal itam yàlla xam na ne booba laa amatul ak euh, euh, contact ak ministère ba lu tax parce que damaa dellusi ci sama liggéey foofu inter entre bi ma ciy wax mooy Cheikh Ahmad Tidiane sama mag dafa am benn waay bu koy bu koy wax ne ko dégg naa ne Lamine dafa retraité ma ne ko déedéet Lamine retraité woon dafa dellusi ci liggéeyam dañ ko able woon able gi jeex na mu dellusi ci liggéeyam liggéey boobu nag ci laa nekk ba ma dellusee ba léegi ci laa nekk di xëyal Mawlana Cheikh Ibrahim di ko gontal nekk ci lam nekkoon di jëm li nga xam ne moom la ñu jàngaloon di ko jéem a tari ci la ci la nekk te waxoon na mën ne fu ñu la ooyee pour joxe xam-xam na nga uyu moo tax man sañu maa tam xam lu benn oote moo tax li eh, eh, Washington sori sori ni New York sori sori buñ ma ooyee pour joxe xam-xam danaa uyu la ma xam ci xam-xam ak néew ma joxe ko ci li daal mooy sama dund eh, la ca gën a gàtt birit birit mooy sama dund euh, jazakallah xeyran bi ah, doomu diplomate hmm. ndaxte sa papa di Alaaji Ibrahima ñëpp xamoon nañ ne mooy diplomate bu njëkkoon ci senegal diplomate bi njëkk ci jullit yi Sénégal ak àddina ak li ko wóor yépp nekk xalifatul tijaaniya bu amul benn wecceeku ci dara ah, nekk doom kooku nekk diplomate boo liggéey de carrière ba pare wàññeeku siwaat ci liggéey bi nga xamee ne moom ndaxte am na benn woykat bu ne bu naan sëriñ daal ñu ne bàyyi na sa tax ñu naan sëriñ ah, liggéey boobu di liggéey bu metti ci ni jamono ji fasantikoo léegi ah, lan nga foog ne moom mooy war a nekk suñu pas-pas ñun ñi nga xam ne taalibe yi ñu ngi ci senegal ak ñu ngi bitim réew tamit te dara yóbbuwuñu rek lu dul sàkku ji ak uti. ñu ngi sant yàlla bu baax am na entre parenthèse bu bu ndaw daa ko ci def mooy ba ma nekkee Jedda ba ni ma fa jógee sama tariqa mosuma koo fàtte benn yoon la ma yaroo itam ci laa nekkoon ba ni ma fi jógee du ma ko nettali parce que. Euh, intéressé wu ma pour ma nettali ko parce que yàlla tax ma doon def bëgguma sax kenn xam ko waaye alhamdulilah yi jëdd ubbi woon naa fa zaawiya boo xam ne àdduna bi yëpp xamoon nañ te xam nga boobu itam déggoo dégginu sa euh, saoudia foofa ak li nekkoon utee lañu parce que bokkuñu école mbir mi yëpp ci ay école la bokkuñu woon école waaye nag tolere nañ ma lu tax parce que ñoom bu fekkee ne li nga nekk dëgg la te xam ne dëgg la te xam nga boobu itam déggu dégginu sa saoudia foofa ak liñ nekkoon utee lañ parce que bokkuñu école mbir mi yëpp ci ay école la bokkuñu woon école waaye nag toléré nañ ma lu tax parce que ñoom bu fekkee ne li nga nekk dëgg la dañ xam ne dëgg la wax dëgg yàlla duñ la def duñ la sonal ci dara duñ la def benn tiis moo tax toléré toléré woon nañ ma foofa ba ma ubbi fa zaawiya ba bokk na itam ci li nga xam ne maa ngi koy sant yàlla ne ci Jedda maa fa njëkk ubbi benn école française boo xam ne doomi Sénégal yi ak doomi africain yi nga xam ne amuñ euh, moyens yu doy pour yóbbu seen doomi école française fa nekk ñoom ñëpp ubbi ubbi doon naa fa benn école ba tey école bi ma ngay dund ba léegi ba gouvernement bi gën na ko yaatal ba ñetti at yi ci passé sax dañuy ñëw di participer ci brevet yi ci Sénégal BFEM yi ak BAC yi ci Sénégal te loolu yëpp création la boo xam ne man maa ko def tey itam loolu maa ngi koy sante bu bu loolu wéyee li nga xam ne moom lañ war a def man ak yi barhamu baun waraun alifun thumma ha